benen choix vous réussir le projet pour lequel des dizaines de Sénégalais ont perdu la vie. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous réussissions le projet Bobo campagne ce qu'on a vu c'est de l'espoir mais surtout, c'est de la certitude que les populations expriment. Certitude que les gens qui ont opposé au 10 ans, dans des conditions que vous connaissez, que l'on dina am. Moi, euh, bu vois à travers le Sénégal dama bëgg fu ngeen vous ak mooy waa opposition wala ñiy tuddee seen bopp loolu bu ngeen dajeeg ñoom laaj leen ñoom lan mooy seen problème lan na leen Ousmane Sonko def parce que nag ku gis lii te mu am ci Sénégal yépp a ah, xam naa ni de nit kuy yàq walla nit kuñ sénégalais yi wóoluwul mënoo am lii mënoo ko am kon ñoom lan mooy seen problème ndax ñenn ñi ndax ñenn ñi mooy ñi ñu ñi ci bëri ci ñi ñu bokkal génération politique su ma nee génération politique nag mooy ñi ñu duggandool ci politique am na ci ñoo xam ne retraité nañu waaye ñoog ñoom ñoo démarré ndax dañoo jàpp ni lii ñu yàlla wërsëgale ñun ñoo leen ko xaj ñoom ba tax ñu jël ko def ko affaire personnelle fu ñu gis Ousmane Sonko wala ñu dégg Pastef seen xol yi di bax ñeneen ñi tamit ndax dañoo jàpp ni lañu yoroon ñoom foog ni ñoom gato bu ñu moomal seen bopp la te muy moomeelu askan wi ñu jàkkaarloog ñoom ba jële ko seen loxo jàpp nañ ni ab teranga buñ leen xañ la ñoom yooyu yëpp ndax moo justifié lii ngeen gis tey te mu safaanoo lool lool lool ak li askan wi bëgg six mois yi jiitu ñoom ñëpp dañoo takkoon seen rajo nekk ndakaaru di wax rek di désinformer di calomnier di wax yoo xam ne amu ci dara lu taxaw jàpp ni mën nañu nërmeel askan wi waaye bi campagne bi commencé ba léegi am na ci ñoo xam ne bis bu ne ma gis seen vidéo ñu toog seen kaw oto waaye du ñu wone lu leen wër de ñoom rek lañuy ñuy wone loolu li muy firnde mooy waxuma ko pour may leen buzz de ndax ne dañu laan soo waxee si ñoom danga leen di may buzz waaye raisonnement bi dafa am fi mu jëm fi mu jëm mooy askanu Sénégal bokk na ci askan yi gën a yeewu ci àdduna askanu Sénégal duñu ñuy nax ci wax ju bëri ak manipulation Vous ngeen depuis quelques jours nak, dafa ont stratégie changé dem nañ ba ci biir gis nit nek ci Subak, ngone am sonko andil sonko c'est pas payant moo tax xawna yi ay attaque duñu manipulation nak ci lañuy li ngeen ni dégg chaque jour ñu génné ben thème bu bees leen wundu le système est agonisant et lorsqu'un système pourri jusqu'à la moelle et agonisant, il faut l'achever et l'achèvement, c'est le 17 novembre 2024 en votant massivement, massivement pour que nous ayons une majorité pour qu'elle moussoul au Sénégal. Lors moyen achever le système définitivement. Ndax Tamba Kunda na. Ndax le pôle sud-est Paréna, Parce que fi waxu pôle je remercie tous ceux qui sont venus pour ci bi ndax li ñu Sénégal donc monsieur les maires nous ngi remercions. gërëm di tamit tous les militants et les militantes de Passif. wallahi militants yu Sénégal waaye gisuma ko ci àdduna gisuma ko ci àdduna ma leen di jottal it nuyoo son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ndax sànq bi may ñëw jóge Kédougou déggoo déggante nañu waaye fu mu toog bopp baa ngi metti ndax lii daanu ko rate te su sañoon fii la koy fekk mu bokk ak ñun lii waaye mi ngi leen di nuyu di leen gërëm tam ndax élection présidentielle bi man maa ñëwoon fii bi ñu séparé woo à partir de Kolda moom mu remonté ci Nioro man maa ñëw Tamba ngeen tertu ma fii deux heures du matin wala lu ko raw ngeen jëloon engagement ak ñun engagement boobu matal ngeen ko ba mu mat sëkk. ci premier mi-temps bi léegi nak deuxième mi-temps bi lañ djublu mbokki Kamba fi damay wax ci le pôle sud-est campagne thématique la wax campagne bo xam dañ ko tek ci xam-xam kérok amna candidat bu fi jaar néna wo daf ñuy yedd néna légui amna ay études yu mu santaane ba INSD def ko nee na man léegi mu may ñaan ma dem jëli étude yooyu pour xool ko gis nga étude ku nekk ci nguur pendant douze ans defoo dara lu dul nga naan am na étude yu ma bàyyi woon ci tiroir yi dem leen jël ko ñooñu waroon nañu am gàcce taxaw naan dañuy campagne électoral mais le pôle sud-est moo boole ñaari région muy région de Kédougou ak région de Tambacounda yéen waa Tamba yéen waa pôle sudes est dama bëgg ngeen am une fierté mooy Sénégal dañ dem ba andi benn stéréotype ñu ne Tamba même ñi fi mujjee am problème boroom yoonu Bakel yi nañ ñi nit ñi nit dañ ah Tamba de tàng stéréotype bi def mooy soo Sénégal oriental Je ne la fu de la fu wow la ba dama am une fierté est-ce que vous savez que vous êtes le pôle le plus riche du Sénégal est-ce que vous ngeen le pôle le plus riche du Sénégal keroog vous présenté référentiel bi classement Sénégal en termes de richesse par tête d'habitant le pôle sud-est moi, le pôle le plus riche et le seul qui, a un un PIB par tête d'habitant de 1 million et c'est des nous 400 000, 500 000, 600 000. L'un le problème, donc, le problème, que cette richesse, quelquefois, n'est pas exploitée, mais souvent est exploitée au profit, même pas du Sénégal, mais d'intérêts étrangers. L'ol n'a que définitivement. Les richesses de ce pays vont profiter d'abord aux fils et aux filles de ce pays loolu est la première chose le pôle sud-est bu tangor, wax Dubai xam nga Dubaï amul fu ko gën aduna ci àdduna désert la Dubaï Arabie Saoudite désert la te ñëpp a dem foofu tey lan moo ko waral Moy ba amé pétrole wala ñu am gaz danyu am sen fulla bu mat téye ko seen mbir ko mi fi nga 40 ans ay la ci désert bi ak ay fa ay gratte nga fay fekk lan moo ñun suñu or bi nekk fii suñu fer bi nekk fii suñu mar bi nekk fii ci bi utiliser wuñ ko dans le même sens ba tey lu mel c'est ça le vrai pari que nous devons relever ensemble est-ce que vous êtes prêts lan la ñu fas yéene def ci pôle bi j'ai commencé par les industries extractives ndax am or bu bëri bu nekk fii ñu ngi koy exploité depuis des années Sénégal impôt sax amu ko ci impôt nga exonéré ci impôt nit ñi mun a exploité génne ko brut conteneur yi wala or bi ci avion yi lañ koy yeb directement ci piste yi mu dem yoonam kenn mënu la wax ñaata ak fan la premier acte que nous posé c'est dañ nous renégocier instituer une commission pour commencer à faire na liggéey bi garantir une chose il y a 27 contrats miniers qu'il va falloir auditer qu'il va falloir relire pour apparaître dès lors, dans de meilleures conditions pour profiter à la région et au Sénégal 27 contrats miniers parce que nous avons fi li nga xamné mo fi am ñu ko fi waxna ko légui aké que muy produire or ta amo comptoir de commercialisation de l'or même nos bijoutiers sénégalais bitim réew dem uti or lolu moy yalla may la alal nga sagane ko mu génn ba paré ngay donc a un contrat de commercialisation de l'or Il raffinerie or gis nga que produire moo xam la des produits agricoles voilà des ressources naturelles quand tant que tu produis et tu exportes brut ni tu es perdant parce que produit balaa muy am sens nga ont une valeur Tu ñuy wax nga transformer valeur ajoutée Moi, tax produit bi boko ko 1000. cent nga donc c'est l'un de nos premiers combats deuxième bi le fer fii fallait am na fer ak feneen ak feneen dégg il ñu y'a cinq ans à peu près bi ñu jëlee fer bi jox ko benn entreprise bu tudd Toy Sali Tosiali kooku waroon ci 10 000 milliards lépp ci kaw le dos des Sénégalais Bob j'étais opposant Ma fi taxaw def conférence de presse fëgg ci table bi Yo, ba ñu dellu gannaaw su du won lolou duñu fekk fi fer bi donc ce fer qui aujourd'hui fer bobu nga xam tay ça appartient quasiment à 100% au Sénégal mom lañu bëgg commencer exploitation il faut que le pôle sud-est devienne un hub sidérurgique ak métallurgique moy li nga xam fer bi la ñu mun ko di traiter fi exploiter de profit traiter de cofis. au-delà du fait que ça va générer des milliers d'emplois mon mooy économie vit. parce que à terme li bëgg que Tambacounda devienne une métropole régionale mais pour moi, am lan renforcer les métropoles que nous créer de l'économie nous faut créer euh, de l'urbanisation Nous wala suñu installé wo du tabax liñu wara tabax motax lool c'est extrêmement important en termes d'infrastructure tay ñi ngi bëgg def université bu Tambacounda ma ma ci dara parce que dañuy wër di wax nit ñi né le nouveau régime mo bëgg bloquer université bi déedéet ñun biñu ñëwé dañoo fekk ñaari projet université bu kunda, ak bu Matam mané ne nañ ko auditer parce que xam nañ gars liñ fi nekkee woon mais so ñëwé gis ay surfacturation yu jéggi dayo est-ce que jàkkoor ngeen benn kër bu ñu war a tabaxal un enseignant les logements des enseignants benn kër sur 148 mètres carrés R plus un ñu war ko facturer un milliard six cent millions benn kër loolu foog ngeen yoon la xam nga man li ma neex ci gars yi mooy bu Sonko di wax comme amatuñu argument dañ naan li mu wax yëpp fen la lu ma wax feeñ na te li ma wax nii ci semaine yi di ñëw ba ñu pare élection législative bi ba installé assemblée bi di ngeen xam gars yi li ñu nekkee ci réew mi loolu moo tax ren quand le ministre de l'enseignement supérieur a voulu ne foog ñu ubbi université Tamba dama ko ne du ngeen ko ubbi parce que parax paraxe bi dina andi ñu yaq li ñu waron défar prenons le temps de faire le travail correctement d'ici l'année prochaine parce que Tambacounda état bi mu nek su dee amphithéâtre yi parégul wala su logements sociaux yi parégul étudiants yi war fé ñew fan lañuy jëlé ñom ñoom ñëpp fu ñu mëna louer ba nek dans des conditions normales de travailler c'est parce que capital bi mu doon wuyowul ak li mu waron don mooy tey ñaata réceptif hôtelier ñoo nekk Tambacounda ñaata complexe yoo fi ñoo fi nekk yoo xam ne tey soo amoon 5000 personnes qui viennent pour un événement ñoom ñëpp war nañoo mën a dëkk dans des conditions normales loolu nag li koy andi mooy nga tabax koom-koom li ma wax ci fer bi wax ko ci or bi ak yeneen ressources yi fi am suñ ko toggee niñ ko war a toggee L'olmo qui génère les richesses qui permettent de construire cette métropole que nous voulons Kédougou doit être une métropole secondaire à l'horizon 2050 nous sommes une métropole nous mooy lan ñu fi voyager gis nañ des yi ñu naan développés. yi développé Kédougou l'a Girassi, xam en tant que capitale régionale xam nga ni des na lu bëree kon lolou moy liguey bi bo jélé activité agricole fi bokk na ci les régions les plus agricoles coton bi foño bi bi tous les produits horticoles ñu fi c'est pourquoi l'agropole bi ñu def l'agropole sud-est parce que li li importance c'est moy mooy bay rek di da ngay transformer sur place l'industrialisation du Sénégal dont on vous parle loolu mooy idée parce que c'est ça qui crée des emplois et c'est ça qui va nous permettre de vous redonner espoir vous les jeunes de ce pays à rester ici et non pas à partir dama vous dire une phrase je ne tubaab bi ñu ngi bëri lu émigration émigration mais émigration amul li am moy bo ñewé foqati alalu nit ñi nit ñi alal sen alal yoon bi mu top mom lañuy top bo jëlé oru bi des fois, investissement créer fi emploi waa du topp top it seen or fekk qui la fi nga c'est ça l'immigration en réalité Si vous avez bi gens qui yi topp la si ñi doon bay te mënuñu xaj Ndakaaru topp la c'est ça qui amène l'immigration c'est ça qu'on doit inverser dans ce qu'on est en train de faire le tourisme est un autre volet important Quoi, wax ce pôle Voir les sites qu'il y a les sites historiques le fort de Bakel euh, le truc des circonstances, les parcs naturels comme le parc Nyokolokoba, les chutes de Dindifelo, ak les chimpanzés est-ce que Rwanda les touristes payent 1500 dollars pour visiter les chimpanzés on est les touristes ne payent même pas 100 dollars pour visiter les chimpanzés Là, la différence bi que aménagement yi ñu complexe New def pour nit ñi bu ñu du tourisme de manière convenable donc le tourisme fi dans ce site là avec la richesse socioculturelle des bassaris, des Bidjik leur danse leur art culinaire Nous avons ne extraordinaire nit ñi visiter lol un des piliers de ce pôle mais li yëpp mënoo def infrastructure foofu d'accord avec ci ak c'est pourquoi le corridor chemin de fer bi nga Dakar Bamako mais it buy remonter Bakel en passant par Falemebi pour l'exploitation du fer Il dem ba Kédougou ak biy wàccaat dem ba Casamance le plan Sénégal bénin sur les corridors tu verras que l'OL est au cœur de la vision 2050 c'est extrêmement important parce que sans ces infrastructures il est impossible li est-ce que xam nga ni ou Falémé bi Il y a ans depuis qu'on a décidé de l'exploiter exploiter wuñu parce que option que c'est l'exportation brute or fer il faut mu le chemin de fer beaucoup koy mais également ak fuñ koy exploiter ak fuñ koy transformer yi yëpp buñ le ko dajalé day dellu ci silima waxone moy pôle bi tay mo ëppalé théoriquement la wax nak théoriquement so revenus revenu par tête d'habitant mo ëppalé ci Sénégal mais quand tu crées une croissance extravertie moy li xew Sénégal depuis presque 10 ans ñu ñu on a une croissance de 7 té cent njëriñul sénégalais parce que 80% de cette croissance est captée par des intérêts étrangers Si vous voulez loolu ba mu à l'horizon 2050 ce pôle continuera à être le pôle le plus riche avec 4 millions par tête d'habitants. mais nous donne 4 millions pour xam lui luy des fils en tout cas au moins les 90 de Tibir ci moi, la vision 2050 et c'est à ça qu'on vous convoque est-ce que vous êtes prêts à accompagner le président Bassirou Diomaye Faye pour la réalisation de l'Imalen Warni Particulièrement vous, la jeunesse. Pour nous accompagner, je vais vous donner quelques recommandations. La première, c'est la patience. réew du fan vous fan la il y a 70 ans fan la il y a 45 ans ça se fait étape par étape on est parmi les 25 pays les plus pauvres c'est parce que nous fi newoon liggéeyuñu il faut nous génn d'abord de l'extrême pauvreté gagner la situation des pays les plus pauvres dem vers les pays à revenus intermédiaires. doog dem ci émergence développement étape est yépp ce que je veux dire à la jeunesse ne soyez pas pressés quand on vous invitera à revenir à l'agriculture andy les moyens de faire l'agriculture moderne On andi le matériel qu'il faut financer l'agriculture mettre en place un système pour que lu ko les jeunes tout le monde doit être dans les bureaux avec climatiseur et cravate la bureaucratie ne fait pas des milliardaires les milliardaires sont ceux qui sont d'or et qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans le commerce, qui travaillent dans l'industrie. Nous voulons que vous ayez cette ambition-là. Est-ce que vous êtes prêts pour nous accompagner ci le premier acte pour Lolo, man vous ma leen jox vous êtes yéen a ñu tànn teg ñu khalis am ci l'argent du pays dinañ ko dello au peuple dinañu am gis-gis bu leer nañ ak ay programme bu leer nañ lool moy contrat bi ñu luwee ce qu'on attend de vous c'est que vous nous accompagnez pas par pas chaque jour fuñ len wo woo na ngeen ñu uyu si ñu leen di gëmlo way yéena len woteloon yéena ngeen ni amagu leen liggéey quand tu as 65 de jeunes mëno len créer emploi en 6 mois ñom ñep surtout so ñëwee fekk ñu yaq réew mi en ko bamou egg une phase de rectification une phase de redressement lolou lañu bëgg ngeen est-ce que vous êtes prêts premier acte bi l'élection élection législative bi ngeen les moyens de gouverner parce qu'il nous faut gouverner six mois yi passé une assemblée nationale est-ce que dégg ngeen ñu une seule loi ñaari loi yi ñu yóbbu assemblée nationale dañ ko rejeté fexé nañu sax pour daaneel sama gouvernement kon su ngeen bëggee programme bi leen tëral ñu dérouler ko rapidement da ngeen ñuy jox une majorité confortable bu boobaa nag bu boobaa nag bu ma fi dellu siwaatee dans le cadre de la campagne mun ngeen ma xool les yeux dans les yeux ngeen ne ma laajoon nga ñu président de la république ñu jox la Là, L'adjoint de la majorité de l'Assemblée nationale, nous avons 155 députés. Mais nous avons 4 ans, nous avons résultat, nous avons début résultat. C'est ce contrat social et le contrat moral que nous avons besoin de nous. Donc, nous avons pris les cartes électorales parce que nous avons pris les cartes électorales. Ensuite, le jour du vote, nous avons le joke. Parce que ce que je vois, si vous êtes à 18h, vous êtes sorti au bureau de vote, vous êtes sorti. Est-ce que vous nous promettez qu'à 7 heures du matin, les bureaux de vote seront remplis à bord Nous voter massivement pour notre liste Nous majorité est-ce que vous le promettez vous êtes l'avenir du Sénégal vous êtes le présent du Sénégal vous êtes le cœur du Sénégal soyez fiers d'être des citoyens du Sénégal